ah bisimilah rahmaani rahim barke sëriñ Touba bokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu wér te di leen wax ne lii mooy Touba Toscana dañ fee ñëw rek di barkeelu lii sax mën na cee ñàkk waaye nag da di murid moom dafay jëfe ndigal rek ndax boo xam ne sëñ Xadim seen wax na sëñ Modou Diouf wax sang si ke wax daanaka du jar rek ñu ci tàbbal ay kàddu waaye fii ne fi ni mënut a ñàkk kon nag leen ci duggee rek mooy dañuy soññ suñu bopp di soññ bokki taalibe yëpp li leen di soññee moom mooy liggéey Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne dañ ko bokkoon naka jekk nañ ci def nañ ci dem ba jeex dem ba jeex nag mooy nañ ci def suñu doolee def ci suñu alal def ci sunum xel te Alaaji Baara Mbàkke yàlla na fi yàgg am na loo xam ne teg na ci suñu loxo nanu góorgóorlu ba loolu mu teg suñu loxo incha allah bu ko yàlla dogalee nu def ko nam ko bëggee yàlla na Sëriñ Tuubaa doolee jàppale yàlla na maam Serapal doolee dimbali barke Serapal asalaatu ala nabi xam naa am na ci luñ ci tàbbalan léegi ay kàddu dañ ciy mujj rek barkeeluwaat ci lu mel ni ki compte corrent bi nga xam ne bi dañ koo ubbi pour ci képp koo xam ne bi am nga loo ci war a dugal man nga cee dugal conte bi nag numéro bi mi ngi nii mi ngi nekk compte corrent CC 11 635 Monte dei Paschi di Siena agenzia agenzia di Pisa versamento indirecto loolu nag boo ko déggee mooy ñi nga xam ne maanaam dañ ciy ñëw di verser direct ñooñu moom mm, am na ci ñu ko man waaye ñi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi ñooñu moom buñ koy def dañ koy def versamento indirecto loolu dafay jaral leeral ci ñi nga xam ne bi dañoo nekk ci bi war cee dugal dara kon dañuy baamut rek numéro compte bi moom mooy compte corrente 11 635 Monte dei Paschi di seena agencia di Pisa versamento indirecto kon nag bokki taalibe yi nañ ci góorgóorlu képp koo xam ne bii rek am nga loo war a barkee ci liggéey bi incha allah bokki di walee mel na ni bokki taalibe yi daañu ko jot jërëjëf sëriñ Touba jaraw rek maam Cheikh ma jox la sëñ Mori mu am ci lu ci yokk waaw kon noonu rek mooy liggéey bi boo gisee ñu tas koy dañoo bëgg fu ci waay mën a nekk tailleur liggéey boo ci ñëw rek mën nga koo dugal indirecto dana ñëw bu dee ji monte parce que boo ko mën a dugalee it amul dara loo ciy fay da nga koy dugal noonu rek mu ñëw kon dañuy daal di jox dema comme sëñ Alsaan Mbuub mu daal di tëj kàddu yi kon bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen a ko déggandoo noonu tey jii noo ngi toog fii ci dëkk bu ñax noo Euh, di benn dëkk bu bokk ci région Toscana nga xam ni fii nu toog fi leen daan siyaare jàmbar lislaam jooju nga xam ni mooy almujahidul kabir di Cheikh Amadou Mourtala Mbacke di ko ñaanal sunu borom dolli ko leera di ñaanal Cheikh Saliou Mbacke sunu borom dolli ko leera di ñaanal ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Bara Mbacke sunu borom guddal fanam te wéral ko di ñaanal jëwriñ ji nga xamante ne mooy Serigne Mamour Mbacke ibnu Cheikh Amadou Mourtala Mbacke ibnu Khadimou Rassoul sunu borom moom itam guddal fanam te wéral ko lii nag tey ñi ngi toog fii tey ci ñaar fukki fan Sénégal ci weeru juin ci ci dëkk bu ñuy wax Livorno ci région Toscana doon fàttali ndax sunu borom dafa wax ni wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina fàttali googu moo taxoon tey taalibe yi dajale fii di waxtaane liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi Xaadimu Rasuul bii nga xamante ni ñu ngi koy liggéey fii ci région Toscana ci njiitul nag Serigne Xaadim Seen mi nga xam ne mooy daayir mooy président daayiratu Matlabul Fawzayni Touba Pisa kon ñi ngi sant ñëpp nekk di ko liggéey sunu borom dana ko yeggale incha allah ndax sunu borom dafa wax ni inna allah ala kulli seen yasir lépp nekk yomb na ko te it wa ala kulli seen xadir kon lépp nekk te mën na ko kon sunu borom dana ko yeggale innahu yasna ala allahi wa ma salika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon ñu jox sëñ يا خير والي عاجم دعي صل وسلم على المكلم ودر ياسم وسنوي على رسول باب الوصول صلي عمر عين صلي داما وزد سلاما واذكر خلاما لي وبنعيم يا صلي رادا يا صلي فادا خالد سعادا لي بعدي نعيم خينتي دا سينتي دا سينتي دا بلا عناي سافق دي فاهي بلا جفاي تايم عساي تايم خداي يا واجل الوجود فوق اللدي قبل وداد كل مراد يا من أفاد بلا جيري يا زلي راد يا زلي خالد سعاد لبعد نعيم خين يدي داء زين غدي داء زين يدي داء بلا نعيم سافق دفاعي بلا جفاي تايب أساي تايب غداي يا سلو جودي كن لي بجودي وجل جودي فوق اللدي عبلي ودادا قل للمراد يا من أفاد بلاكي